ma nuyu sama sama sama sama benn benn xarit Abdou. Hmm. nekk adjoint au maire à Dalifort. Ah, euh, jërëjëf merci beaucoup Abdou ñu ngi lay nuyu baax. Cheikh Omar ñëw ci question judiciaire yi c'est important euh, tout à l'heure euh, lu soxal Moustapha Diakhaté moom nag daa yëkkati woon ay kàddu ci ab télévision de la place ne képp ku watal parti Pastef gogee da ngaa alako kaddu yooyu nag moo taxoon ñu ko ci cybersécurité suma jubul boobu la convocation nag moo taxoon ñu amal ko ab garde à vue finalement bi ñu ko présenté procureur mu sàkku ne dafay dem kaso xaarandi tey ji nag moo doonoon euh, bés bi ñu koy atte atte bi daanoona tëj nañ ko euh, balaa loolu sax procureur sàkku woon na ñu tëj ko un an boo xam ne juróom benn weer lay tëdd ak 300000 francs CFA yoo xam ne dafa koy jox joxe finalement nag euh, juge bi moom nee na ñaari weeri kaso dong la ko daal di tëj ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko waaye nag dafa ci diggante Maître El Hadji Diouf ak ñi doon attee parce que dafa jàpp ne alaku daal du saaga même Moustapha Diakhaté également loolu la jàpp ne alaku c'est pas un mot très péjoratif comme ni ko Sénégal di interpréter déjà naka nga jàngatee euh, cette décision venant de la justice sénégalaise et ñu bëri jàpp ne également peut justice bi commencé am même di wane boppam waaw mais euh, balaa ngay wax euh, justice sénégalaise li ñu njëkk war a njëkk a wax mm-hmm. mooy lan mooy justice ak lan mooy principe ñu am ay loi ak ay règlement parce que ñun bi ñuy dem di jàngi droit par amour et par passion dañu wax ci jëlbeen il faut ñu commencer ko ci doomu aadama mm-hmm. dafay vivre en société et bu ñuy dund ci société faw ñu organiser société mm-hmm. organisation société bi dafa laaj mu am ay règles da nga am ay devoir mhm. am ay droit am da nga am ay àq am aussi ay yelleef ay yelleef waaye aussi am lu la war ba tax na li bokk su ma doon expliquer xale bu bëgg a def droit droit mooy lu jub <laughs> droit ñun buñ ko doon bind sax nii lañ dañuy def nii rek rëdd liñ ci jublu mooy dans cette société il faut qu'on l'organise je te un exemple tey bu la neexee da ngaa bëgg a tuur ndox mais xam nga doo dem taxaw ci diggu tali bi nii. Mhm. ñëw rek saw noonu doo ko def. lu tax pourtant bind ñu ko fenn ci ne la c'est interdit ou pas. mais xel nanguwul parce que waaw comme xel nanguwul lu tax xel nanguwu ko parce que. Mhm. yar bi ñu am ak éducation bi ñu am nos valeurs religieuses et nos valeurs morales nous interdisent. Mhm. de venir pisser dans la rue pourtant c'est pas écrit. Ouais. donc kon ci wàllu moral droit kon mu nga fa. Mhm. droit dina jël sax ba jël si sunuy aada droit dina jël sax ba jël si sunu ay diine ba tax na ñëwul pour jël yat rek dóor. mais dafay ñëw sax pour prévenir d'abord. Mhm. c'est-à-dire ki naroon def ñaawteef su yégee ni lii bu ko defee lii moo ko ci fekk wala diw def na ko ñu daan ko bu ëllëgee du ko def. Mhm. kon droit dafa ñëw tamit pour jubbanti. Mhm. balaa muy àtt dafa ñëw pour jubbanti ñëw pour defaraat. je je m'explique. code yi ñu doon wax c'est du droit. moo tax c'est transversal. li ñu toog fii sax droit moo ko organisé. parce que maa ngi ñëw di def une prestation. dafa am man loo xam ne moo ma war sama diggante yéen waaye yii it am na lu leen war sama diggante ak yéen du dëgg. Mhm. ci mbedd mi fu ñuy lal ak fu ñu dul lal droit daf ko organiser code de la route sama sa copain bi mu amulee permis mhm. gis nga li ko ci fekk. code de la route droit la mu organiser tali bi du dëgg. Mhm. maintenant revenons sur sur les choses moo tax je voulais d'abord montrer. oui c'est quoi le rôle. de la justice. elle permet elle permet de veiller. au respect strict des règles et des lois. fexe ba duñ néewal kenn doole fexe ba kenn du am àq man nag euh, jàpp naa ni wax naa ko keroog mu Moustapha Diakhaté euh, suma moroomu wayjur la et xam naa ko. Euh, def naa ak moom émission sax ñu ñu ñu pare mu ngi ànd ak doomam mu ne ma nee damay jëli taxi mu ne mu yéegal ma yóbbul la mu yóbbu ma wàccee moom mu wàcce woon ci foire bi mu mën a jël oto dem Pikine. pas problème. mais ma jàpp ni la ci ci juum na te tooñ na. mais oui il pense le contraire apparemment. waaw mais c'est normal. oui parce que bu fekkee ni dañ la yóbbu ci yoon yoon di àtte di nga défendre sa bopp di nga am ñu la défendre loolu mooy principe bi. Hmm. c'est comme ça que ça se passe le procureur su ñëwee daf lay chargé parce qu'il est l'avocat de la société moom jàpp na ni yow da ngaa tooñ société bi yëpp. Hmm. moo tax day sàkku. bu sàkkoo ba pare yow say avocat dañuy ñëw ñu defendre la. moyen bu ñu mën a am pour défendre dañ koy def. dinañ ñëw ne li nga wax ni bokkul lii nga bëggoon wax dinañ wut lay bi. maintenant attekat bi nag mooy xool loolu yëpp mu dajale ko joxe ab verdict bu attekat bi joxe verdict mooy condamné nañ ko donc ça veut dire que attekat bi daan ko. lu mu ko daan. deux mois ferme. ñaari weer lay tëdd. li ci topp. loolu la ñuy wax. waaw jeex na léegi day gérer ñaari weer ñaari weer yi mooy dañ koy yar. ñaari yi mooy dañuy wane ni que lii mu yëkkati ci kaddu waru ko yëkkati maintenant. am na yuñ ko toppee woon. ndegam yëpp lañ ko toppee. wala dafa am yoo xam ni dañ ko koo gàlloon te dindi nañ ko c'est important aussi. dafa am ñu ko gàlloon yoo xam ne génne nañ ko moom apparemment. mooy la euh, yaakaar na injure bi lañ koy. lañ ko toppee kon toppeewuñu ko trouble di jëm ci wàllu politique li tax ñu jublu ci kon dañu jàpp ni baat bi mu yëkkati mhm. waxuwut man El Hadj Diouf nee na <laughs> toroxlu c'est ah, waxtaan fii. waxul toroxlu de. Ah, waaw dañoo alaku excusez-moi alaku. non du alaku alku. xam nga luy alku nit ku alku mooy la xam nga. ku modi. waaw nit ku alku mooy koo xam ne bu dee dem na safara yow yaa moom safara yaa moom àjjana yow yaa xam ko alku yow mën nga dajeeg nit sax nga jàpp ni yorul fekk yow moo la gën nañ ma baal ci kàddu yi xale dina réew waaye mag aussi dina reew mag bu réew de baaxul waaw ah, mais xale bu réew mun nañ ko yar mais mag bu réew loo koy def dañ koy yedd rek léegi yedd bi nag mooy mu yedd boppam donc su demee deux mois ci kaso bi dina noppalu te dina yedd boppam yaaxaar naa parce que boobu ba léegi ni mu doon waxee. Mhm. wax ji ñagas na. kàddu yi ëpp na. nañ ma baal nag ci kàddu yi parce que moroomu baay la ci man. Mhm. nañ ma baal ci kàddu yi ndaxte ku la mën a jur la. waaye du ma yëkkati kàddu bu dul kàddu or ma jëmale ko ci moom wante jàpp naa ni kàddu yu mu wax kàddu yu tegginiwu la te tey yoon daan na ko. donc euh, awma lu ma ci commentaire lu dul que pour man euh, il fallait que il a fait du tort mhm. à des parce que esprit démocratique mooy nga accepter la différence mooy nga accepter le choix des Sénégalais c'est-à-dire bu ñu xëyoon ne Ouzin Barigo lañ fal nangul leen ko sa yoon new si parce que c'est le choix des Sénégalais il faut qu'on accepte de respecter le choix des Sénégalais. mais moom peut-être dafa jàpp ne Pastef ñi fi taal ak ñëpp waa Pastef ñoo ko ñoo ko waral. kon peut-être ku waral ku woteel Pastef da nga excusez-moi. da léegi léegi. xam nga il faut ñu bañ am na ku ma doon waxtaanal mu ne ma waaw ñi dañ doon saaga ma ne sa ma ne leen attends moi je suis pas dans mhm. lu dul yoon du yoon. oui. grand. Mhm. dañu génn élection y a deux millions de pour Ousmane Sonko. waaye léegi soo waxee deux millions de personnes yéen ñooñu nii léegi nga génn ci mbedd yi koo dajeel mu tëgg la mel du problème ndax léegi bu la yoon daanee ñëpp xam ne li nga leen defoon yoon daan na la ko. loolu dina leen defar benn. fee nañu waxante dëgg. grand ci pénc mi dafa am yoo xam ni laa mënta rafetlu man nekkuma si lu neex nit. booy boobu nu mu tudd kii yor drapeau Sonko Azura. Azura li mu def keroog dafa ñaaw. waay tey sax El Hadj tudd na ko ci tribunal. non non Azura li mu def ak yow j'écoute pas. dama ne man waxuma keneen man samay principe laa yore. waay lu ma nanguwul démb mënuma koo nangu tey. Mhm. parce que dem gis ab dàngin naan diw mii diw mooy baayam xam nga wax boobu rafetul. parce que kuñ ko waxoon sa baay du la neex. Mhm. est-ce xam nga. baa Diakhaté tu sais xam naa ko. ñoo bokk fu ñu dëkk Pikine. tu sais que je le connais xam na ma xam naa ko ëpp na fukki at ma xam ko ñu bokk fu ñu dëkk bi ñu ko jàppee fii laa toog ak yow lan laa wax. qu'est-ce que j'ai dit. damaa toog ma ne Bah li mu wax dafa ñaaw. oui ànduloo ci. ànduma ci. que jël yenn kàddu yi di ko yëkkati même waxuma la sax premier wala keneen mais toog di yàq nit. je ne suis pas d'accord et je lui ai moom tey génn na kaso mais y a problème parce que moi je fonctionne comme ça imam bi nu mu santoon imam Ndaw billaahi wallaahi wa taalaahi mën naa la wax lu ma deux ans dama koy déglu maanaam du ma woon tëdd nelaw te dégluwuma ko moo jox la est-ce que xam nga histoire yu bëri ci moom nga ko ci moom laa ko déggee jour bi ma déggee kàddu yi dama ne non du moom ñu wax ma man leen kii mënul nekk imam bi may déglu man parce que yàlla yàlla rek a tax ma moom laa xamee histoire am Adama. ci moom bi ci bi ma ci mujjee déglu mu histoire yonent yàlla nuux ci moom laa ko dégloo ma jàng ci moom lu bëri mais bis boobu bi ma ko déggee xeet naa ko dama ne non kii mënul nekk ki ma doon déglu ñu won ma ma ne leen déedéet mënul nekk parce que li ma ko doon dégg ak fi ma ko tegoon mais bi ma déggee kàddu yooyu. Mhm. ba tey mënutuma koo déglu moom. tu sais pourquoi parce que wàcc na fi ma ko tegoon te moonte dama koy déglu te ku ko sopp laa woon mais accepté wu ma lool je ne suis pas là pour xool neex nit lu ñaaw dama koy ñaawlu lu ma àndul ànduma ci parce que bugguma ko ma saaga man kon lu ma cautionné kuy saaga je ne l'accepte pas c'est inacceptable et Moustapha Diakhaté li mu def c'est inacceptable tu ne peux pas dire à deux millions de Sénégalais que vous êtes des damnés yow xamoo ko alku ak ku alkuwul alku mooy ci at bii nga toll ñu waroon la xaar fenn alku mooy nga mën a ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa gënu la ndey gënu la bàyyi loolu lan moo lan moo gën a nekk alkande loolu nga foog dama lay laaj lan moo gën a nekk alkande loolu ok est-ce que Cheikh yonent bi nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba moom la dippee doomam yëpp Sëriñ Tuuba ak a xam yonent bi doomam yëpp moom la ko dippee lu mu am yonent bi la tuddee boppam xaadimal Moustapha tuddee boppam xaadimul rasul taawam <laughs> mu tuddee ko Mouhamadou Moustapha limal ba mu neex la doomam yëpp mu tuddee leen yorant bi yow nga mën a toog ne yonent bi gënu la ndey gënu la bàyyi quoi loolu mooy alku sax nag boobooy alkaande bu bon bi nag ok monsieur Omar après daan bi dafa am Sénégal yi ma jokkal wala peut-être ñuy waxtaanal dafa mel ni que ils n'ont pas été justement satisfaits ci deux mois yi kam nañu jàpp ne c'est un peu minime a dit et tout a fait quand même defal naa defal naa am lu ñuy wax infraction am lu ñuy wax délit am lu ñuy wax crime ce qu'il a fait c'est pas un crime il faut qu'on soit et puis l'objectif c'est pas jàpp nit yi tëj leen à quoi ça servirait c'est juste lui donner une leçon. Okay. donner une leçon aux autres c'est tout. ok mais ce que l'appel euh, de la société civile quand tey attekat bi dégg na ko parce que ñoom li ñoo réclame mooy ñu bàyyi ko mu ñibbi liberté d'expression. la et cetera et tout non bi man ak ñeneen ñëpp.